Merci de nous avoir reçus, chers amis internautes de Senclic, et bienvenue dans votre émission édition spéciale. Et dans cette édition spéciale que nous avons le plaisir de vous présenter Diène et Frères Prestige di yëngatu ci wàllu mode ñu nekk ay ñoo xamante ne ni di ñëw def lu extraordinaire ci wàllu mode ci wàllu ñëw rawatina ci wàllu costume africain mbokk yi dama leen di invité ngeen ñëw ci boutique bi fii Liberté 6. Euh, en face ci mosquée Liberté 6 bi ñu dugg ci biir xool xale yi nga xamante ne ni ay jàmbaar lañ ay ndaw lañ di def lu extraordinaire ci wàllu ñëw nekk ay styliste di def lu doy waar sénégalais yi ñëpp d'accord leen ci seen i mën a ñëw mbokk yi ñëw leen ñu xool li nga xamante ne moo nekk ci Diène et Frères Prestige c'est maintenant ñëw leen am internaute de Senclic dugg nañ ci boutique bi nga xamante ne ni moom mooy Diène et Prestige Diène et Prestige di def lu extraordinaire ci wàllu mode rawatina mode africain yi nga xamante ni dafa xewal bees mooy costume cravate kenn solatu ko léegi lépp li ñuy sol léegi mooy costume cravate africain bi nga xamante taille sur mesure la donc gis ngeen li ma sol ni ma jàppee ni fii lañ koy ñëwee ay doomu sénégalais lañ di def lu extraordinaire ñu ngi yëngatu ci wàllu ci wàllu di ñëwal télévision yi di ñëwal artistes yi di ñawal woykat yi donc Diène et Prestige ñoom sax bëgguñu di fës donc li ñu koy def dañ koy def dans l'anonymat mais waa Senclic tey ñoo ñëw fas yéene leen wone waxtaan ak ñoom seen liggéey bu rafet bi nga xamante ne ni ñu ngi koy def liggéey bu extraordinaire bi et puis confiance bi nga xamante ne aussi sénégalais yi artistes yi comédiens yi aussi tamit nit ñi am nañ ko ci ñoom rawatina sous région bi nga xamante ne ay Burkina Mali Guinée fépp foo xamante ne nii euh, euh, nit yaa ngi fa rek donc ñu bëgg lu rafet ñoom ñu ngi ñëw seen i ñëw ñu ngi koy envoyé foofu donc moo tax ñu ne xaar ñu ñëw woon leen ko mais dañ leen di woon benn extrait bu ndaw boo xamante ne nii donc ci exposition la fii ci boutique bi donc ñu seetaan ko ñëw revenir at ñëwaat waxtaan ak Diène et Prestige c'est maintenant gis ngeen ko noonu donc mooy vidéo yi nga xamante ne wan lañ la ko moo am ci boutique bi mais tey dama lay fas yéene wan kenn mooy Diène et Prestige liggéey bu rafet boobu nga xamante ne nii ñu ngi koy def muy benn waaju làqatu koo xamante ne ni sax xama bu nga daje nga moom ci mbedd mi sax doo xam ne moom mooy mooy def liggéey bu extraordinaire boobu ok Diène ñu ngi lay nuyu. Ah, Senclic ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di nuyu bépp internet bi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. Mm-hmm. di nuyu samay copains. ñi nga xam ne ñoo tax ñu ne Diéne Frères Prestige. Mm-hmm. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xam ne tamit ñoom laa fekk fii ci koñ bi. Mm-hmm. waa koñ bi waa zone bi ñëpp sama voisin yi. di nuyu képp ku ñuy seetaan aussi. di nuyu ñëpp bu baax a baax a baax a baax. mais tey soo ñuy wax ci Dieyna Prestige da ngi yéen nga di yëngatu ci mode depuis quelques années donc ngeen ràññeeku ci trop mais yéen en personne Dieyna nit ñi xamuñ leen nit ñi xam mooy liggéey bu rafet bi ak boutique bi donc c'est la première fois que ngeen nangu ñëw di waxtaan ak télévision yi waxtaan ak askan bi donc làqatu boobu doonu liggéey ci dans l'anonymat boobu lan moo ko waraloon. waaw <clears throat> c'est vrai dëgg la. Dieyna mhm. Prestige yàgg na. Mhm. yàgg na trop di liggéey. Mhm. waaye nit ñi xamuñu ko woon parce que dafa am benn concept boo xam ne moom la ñu démarré. muy benn concept bu solide boo xamante ni képp koo xam ne am na projet. projet mu bëgg ko avancer. donc il faut nga am ci nooy déparé. tu vois bien vrai que ñun avant ñoo teg lii. c'était lépp fi mu démarré que ne mooy ñi tax. li ñuy gis fii yëpp. ñoom ñoo waral ngay gis lii muy Mor jenn ak Ablaye jenn ñoom ñaar ñooy tailleur yi donc ñoom ñaar dafa am fu mu démarrer avant benn avant lii yëpp di am parce que dafa nekk ñaar ñoo xam ne non dañu touche yu garaaw non touche yoo xamante ne man vraiment dafa ma impressionné voilà ci noonu la démarré ñoom bi ñuy démarré dañuy juddu ci ñaw avant ñoo démarré lii dañu dañu yoroon dañu dañ doon liggéey ak mm-hmm. seen nijaay mm-hmm. seen nijaay da leen tëgg mm-hmm. xam nga nee nañ chaque fois toujours nit booy xool mën-mënam da nga koy xool ki ko tëgg naka la ko tëggee ñoom dañ leen a tëgg tëgg bu baax ñu am benn mais boo xam ne mais bu jaaxal ñu bari la tu vois ci noonu la ñu démarré di dem di liggéey commencé bi ñuy njëkk liggéey ñu ngi doon liggéey ay tenue saharienne yi mm-hmm. mm-hmm. kenn daqul leen ko fii ci kaw suuf mm-hmm. maanaam ñoom tuus yi ñu dajale moo bari ci seen loxo tellement que noonu la demee ba nit ñi commencé ñu leen di découvrir ndànk-ndànk. Mm. parce que Diané Frères au début bi ñuy tàmbalee xam nga rek temps booy bi ñuy depuis yàgg na. Mm. ñuy démarrer boobu léeg-léeg damay ñëw jënd indi benn tissu booy nañ ñaw lii nañ commencé lii ñu ñaw ma sol. Mm. génn dem su ma génnee sol. quelques personnes appréciées. ñu ñëw indi parce que loxo bi moo setoon. loolu moo doon secret gars yi. Mhm. loxo bi moo setoon. Mhm. ci noonu daal la ñu démarré. voilà après <laughs> dinañ gën a expliquer. ok d'accord ok gis ngeen début bi loolu mooy loolu mooy début bi nga xamante ne mooy début Diène et Prestige loo gis rek dafa am fu mu tàmbali maanaam soqeeku Diène et noonu la tàmbale sànq pour dëgg li ngeen wax ci loxo bi dañu am loxo bu extraordinaire. Diène et ay ñoom mu ngi dem partout ci sous région bi am na ay commandes yoo xam ne am na ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi Sénégal donc yor seen i boutique bu ñëwee Diène et Prestige moo leen di ñëwal yéen ngeen ne cell rek c'est-à-dire lan lan moo lan yéex a jóg bi lan lan moo ko waral. voilà en mm. fait Diène euh, et Prestige mm. mun nañ ne yàgg na. Mm-hmm. mais marque bi la ñu yéex a lancé. Mm-hmm. toog ba léegi soo ko lancé parce que ñun. Mm-hmm. fi ñu démarré dafa am benn kóllëre bu dox suñu diggante ak ñu bëri. parce que nee nañ gis nga bu ngeen nekkee ay jeunes. nga nekk jeune. Mhm. nga gis benn jeune boo xam ne yow comme yow. mu mhm. bëgg liggéey gëm liggéey. Mhm. am benn concept boo xam ne. yéen ñaar gis nga ne yéen mun ngeen ànd. mais da ngeen di liggéey. comprendre ci noonu la ñu nekkee woon. dañ doon ñawal dañuy ñawal ay styliste dañuy ñawal ay pas mal de gens. et puis seen dem ba bitim réew ah, fu nekk ci àdduna bi. non day dem fu ne fu ne fu day dem États-Unis mhm. day dem Italie day mhm. dem Espagne day mhm. dem France un peu partout fu ne mi ngi fay dem fii da ngay toog da ngay ñëw ñu kólla na la mais yow seen tenue yi dañ ko gis mais franchement tenue yi dafa nice xam nga ngeen expliquer ngeen partager xam nga léegi bu ñu la laajee naka la ñuy def ba am tenue yi ci noonu noonu ngay démarrer kii ngay ñawal mu indil la keneen nga ñaw kii mu indil la keneen ay directeur banque noonu lañ pas mal de gens quoi ay mm-hmm. autorités ay ponkal yoo xam ne sincèrement. Mm-hmm. bi ñu ñamee touche bi ba tey moom. <laughs> dañuy jëfru quoi. mais aussi beneen affaire la tous yi beneen affaire la parce que bon ku xool li ma sol aussi tamit gis ngeen vidéo yi nga xamante ne nii donc mu ngi jàll modèle yi gis nga ko euh, moom à personne moo ko sol gis ngeen ko euh, gis nga gis nga rouge bi yaa ngi dégg donc gis nga gris bi xam nga donc gis nga façon ñëw bi xool ci kaw ba ci suuf gis dàll yi donc dañuy jaay à dàll même aussi di jaay ay ay ay souliers donc fi daal soo fi ñëwee lépp nga fi fekk mais tey jii li ma la bëgg a mooy ñi nga xam ne daan ñëw di def ay commande tey di def ay commande def ay lot di ko yóbbu Espagne di ko yóbbu France di yóbbu fu ne ay styliste tey actuellement Diène et Prestige ñu ngi sur le marché ba pare di marqué seen empreinte di di def lu extraordinaire donc tey euh, lan ngeen prévoir ak ñooñu est-ce que relation bi dafay continuer wala soit Diène et Prestige dafay continuer di di di di semer boppam. waaw xam nga Diène et Frères Prestige. Mhm. du tet yu ñu tudd noonu rek. Mhm. parce que dafa nekk loo xamante ne parce que ñun dañu am benn concept boo xam ne ñun lii costume africain dafa nekk loo xam ne ñun ñoo ko moom mhm. donc ñun suñu premier concept. Mhm. mooy naka la ñuy def ba promouvoir li nga xam ne ñun ñoo ko moom. Mhm. parce que mhm. pour ñu promouvoir que warul des ci ñun. ñun dañuy continuer di liggéey ak ñoom. parce que xam nga lal parce que ñoom ñoo ko war am emporter mu dem. bitim réew parce que am na ñoo xam ne. dañuy war a am défilé. dañuy ñëw carrément ñu dañu am défilé défilé bi bëgg nañ mu demee nii. te aussi loolu ñun dañ ci sawar tellement parce que ñun xam nañ ne lii touche bii ñu yor. dina am dara quoi parce que mm-hmm. ñun suñu concept mooy li ñu yor ñun mm-hmm. ñoo ko mën a jaayal suñu bopp mm-hmm. du ñu xaar kenn ñëw jaayal ñu ko kon donc képp ku ci taxaw pour mën a ñëw bëgg a jaay kii bi ñun dañ ciy ànd ak yow parce que tamit xam nga nit doo ànd ak moom mu dem ba benn jamono nga bëgg a tal sa bopp bàyyi ko kooku dafay am leneen tur ñun amuñu esprit boobu ñun esprit bi ñu am moom la ñuy demee ba fu ñu mun a egg quoi parce que tamit mun nañ ne ñooñu ñoom ñoom ñoo permettre ñun ba suñu produit di dem ba suñu loxo di dem ay fu ne fu nekk ci àdduna voilà kon donc mhm. lien boobu duñ ko dagg quoi mhm. waaw lien boobu dañ koy conserver mhm. ok lien boobu duñ ko dagg mais li ngeen di ñëw dafa rafet dafa extraordinaire mu buggoon xam saa di sur le plan technique maanaam bind bi cest di dire da ngeen am ay designer dafa am ñoo xam ne saa di groupe bi naka naka ngeen di fonctionner quoi waaw <laughs> liggéey bi naka lay demee parce que Diène et suñu ñëwee boo xoolee da ngay am da ngay yaakaar ne ay tubaab ay machine wala soit ñaw yi extérieur la jóge parfois sax tu te dis da ngay sol benn affaire xoolal li nga sol tey képp koo wax ne lii Sénégal lañ ko ñëwee dina toog xoolaat parce que dañu jàpp ne ñaw bu rafet tubaab yi rek ñoo ko ñoo ko mun a sol donc tey technique bi ci seen groupe bi naka la demee. voilà <laughs> question boobu ku nañ moo ñu koy laaj. waaw <laughs> du tey quoi. Mm-hmm. même ay clients dañuy ñëw dañ naan ñu mais yéen attends mais mm-hmm. yéen. Mm-hmm. lan mooy lan mooy seen secret quoi lan la ah. pro yéen fan ngeen nekkoon. Ah. yéen fu ngeen newoon. Ah. parce que xam nga du dara mooy li ma lay expliquer. gis nga nee nañ. métier. métier. boo koy jàng. da ko war a jàng. li tax ñu naan jàng. parce que loolu c'est très important. gis nga doomu aadama bu nekk. am na ay potentiel yu nekk ci moom. mais potentiel yi. du moom mooy génne boppam yow yaay augmenter. say capacité pour génne say potentiel. te gars yi. muy laay ak moor mi moo wax mm-hmm. ñoom ñoo yor potentiel bu garaaw a ñoom mm-hmm. seen bopp xamuñu ñoom potentiel bi ñu yor mm-hmm. xam nga nit dina am potentiel te du xam sax bii potentiel la am parce que gars yi seen loxo yi man man man sama bopp man sama part man dañ ma yéem man dañ ma jaaxal jaaxal nañ keneen parce que gars yi chaque jour bés bu yàlla sàkk ñu ngi créer gars yi boo kii ñu ne no ay design gis nga gars yi seen bopp yi mooy lépp ak loxo yi affaire yi don la pour te dire. Mhm. day ñëw day ñëw nii. Mhm. da gis dañuy toog rek. Mhm. automatiquement laay wala moor kenn dara day nekk ci boppam rek. sur le sang la mu dem indi tissu rek dóor ko. bu ko dóoree mu impressionné dañu dof booy yi. man dañ ma impressionné. sincèrement et puis en 24 heures mun ngeen defal nit ki commande jox ko ko livré ko en 24 waaw man loolu ma ci gën mm-hmm. waaw loolu danañ koy am mais sa mm-hmm. mm-hmm. dépend ci moment yi ñu koy def dinañ koy def léeg-léeg mais sa dépend ci moment yi koy def des fois di nga ko bëgg def mais commande yi ñooy bëri liggéey bi dafay bëri sincèrement liggéey bi dafa bëri trop xam nga te aussi bëgg nga satisfait ñëpp xam nga bugguloo tamit xam nga li ñuy gën a dañuy bañ clients yi des fois ñuy am ay frustration ak yooyu xam nga dañ koy éviter moo tax des fois dinañ koy def mais très rarement lañ koy def. Mm-hmm. comme ci yenn cas yi nu muy demee. Mm-hmm. nit bu war a voyager tey tey tey tey tey tey il fallait wala mu am benn rencontre boo xam ne c'est urgent il fallait. Mm-hmm. te suñu client la suñu touche rek la gis gisul dara lu dul suñu touche. peut-être mun nañ ko def. daan nañ ko def lu bëri mais instant bi xaw na wàññeeku nag. xaw na wàññeeku mhm. liggéey bi moo xaw a kii trop quoi. Mhm. ok d' accord euh, dégg naa li nga wax sànq ci côté technique bi donc gars yi dañu kale xam naa ni daal affaire bi don mais ku ñëw fii di nga xam ne lii don parce que donc li fi nekk expertise bi fi nekk donc li fi nekk ci wàllu modèle style bi et fii non fii man dugg naa ci boutique yu bari mais fii soo fi duggee da nga xam ne fii. ñii Diène et Prestige li ñuy def dañ ko mën Diène et Prestige li ñuy def dañ ci taq trop trop trop trop trop trop mais tey ji euh, yan partenaires yi nga xamante ne tey pare ngeen pour liggéey ak ñoom parce que tamit bon euh, ñu ngi dégg ci suuf ne Diène et Prestige léegi daal bon pour pour pour liggéey ak ñoom il faut que bon léegi dañ lay kii ak yu demee noonu mais léegi tey yan partenaires yi nga xamante ne nii tey Diène et Prestige tey pare na di liggéey ak ñoom wala soit ñoom la ñuy gën di liggéeyal wala soit Diène et Prestige ci boutique bi lay gën a focus. waaw Diène et Prestige comme ni ma la waxee ñun dañu am esprit ouverte mhm. ñun amu ci lenn du ñu focaliser wu. parce mhm. que projet bi. Mhm. c'est un projet. projet nekkul lu tuuti projet lu rëy la. ñoo xam ne ñu ngi commencé liggéey ak ñoom di waxtaan. ay partenaires yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom muy. ci yeneen pays yu bëri ah. Mhm. ñu ngi ñuy contacter. Mhm. am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba fii. Mhm. impressionné ñu jëf jëflante benn yoon. ñu ne ma kat maa ngi bërëb sàngam réew nangam. naka la ñuy def ba liggéey partenariat. xam mën a liggéey. ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy waxtaan. xam xam nga boo nekkee ci liggéey ci waxtaan moom. des fois day comme que wax nga ko ñun dañuy xaw a dëxëñu tuuti. dëxëñu <laughs> waaw waaw voilà comme que dëxëñu ba. kii quoi affaire sotti quoi voilà voilà c'est ça quoi c'est comme ça. ok beneen affaire aussi tamit donc comme ni ma leen ko waxee sànq ñoom. Euh, ay jeunes lañ yoo xamante ne nii di def lu rafet nga xam ne kenn dootu leen présenté ci milieu mode wax naa ko ci commencement bi wax naa ko sànq te dama koy waxaat parce que ñëw naa fi donc ku gis li ma sol encore une fois ma waxaat ko donc ak yeneen ak yeneen li nga xamante ne ñu ngi fi dinañ leen woon ay extrait léegi yoo xamante ne nii donc ay exposé bu ndaw boo xamante ne nii loolu commencement kese la donc ngeen seetaan ko après ñu revenir at ci plateau bi c'est maintenant gis ngeen extrait bi nga xamante ne nii donc wan nañ leen ko sànq ci biir boutique bi nga xamante ne mooy Diène et Prestige nekk ay jeunes yoo xam ne def lu extraordinaire ci wàllu mode di ñawal fépp nag ku nekk kilifa bu nekk fii nga xamante ne nii yaa ngi ci Sénégal donc pare nañ ñoom pour liggéey ak yow donc gis ngeen. extrait bi nga xamante ne nii seetaan ngeen ko yéen a ko gis weddi gis bokk ci ñu nekk ay jeunes yi nga xam ne du def lu extraordinaire ci wàllu mode di jeen et prestige donc nekk fii ci Liberté 6 en face mos grande mosquée bu Liberté 6 bi donc contact yaa ngi noonu ci suuf képp koo xamante ne ni pare nga pour ñëw donc bëgg a mel ni gars yi nag coofe roofe comme ni ñu koy waxee xam nga donc am na fii ay ay costume africain yu classe aussi ak noo mën a mel nag donc mën nañ la jëlal sa forme ñëwal sa costume africain boo xam ne taille sur bu extraordinaire dañuy wax ci euh, fi bi ma fi duggee c'est-à-dire euh, qualité tissu bi ngeen di ñawee aussi ñu wax ci parce que quand donc tissu bi fi nekk parfois da ngay gis tissu boo xam ne doo ko mës a gis fen jéen fan lay faral di gisee tissu wala soit da ngeen di yëngatu ci côté tissu waaw au fait euh, tissu mhm. xam nga maanaam produit. Mhm. xam nga produit bu amee. Mhm. mbir mu bëri. il nga am loo xamante ni da ngay lijjanti sa touche bopp. Mm. parce que des fois. Mm. il faut nga gars yi dañuy soxla li nga xam ne dafa raar. Mm. am na yoo xam ne waroo ci kafantu. tisi tisi. tisi ñun duñ ci kaf quoi. dañ kaf duñ ci foo. parce que loolu ci suñuy ci ci suñu priorité la bokk. parce que dañuy bëgg suñu client bi nga xam ne ñun suñu client la. bu taxawee. Mm-hmm. fu mu taxaw moom il se sent à l'aise quoi. Mm-hmm. parce que dina am tissu boo xamante ni mun nga dox fu ne pour nga gis que c'est tout un problème. Mm-hmm. problème bu rëy la. tissu boo xam ne dafa raar te ñun du ñu nangoo am tissu bi ñu am ci lu bëri. parce que dañuy bëgg mu raar parce que dañuy bëgg mu nekk beneen facette quoi beneen facette la ñu bëgg a indi. ci modd bi. comme du nekk comme bu njëkk gars yi foo tourné gis même modèle même mm-hmm. tissu même couleur même mm-hmm. kii mais dañ ko bëgg a changer loolu moo tax ñu gën a focaliser wu ci tissu mm-hmm. am na ñu ñuy liggéeyal nag ci tissu yi ñooñu tamit sont calés ci tissu parce que nee nañ projet dafa yaatu liggéey il faut nga jox loxo ñi nga soxla ñëpp pour nga mën a am lii nga bëgg il faut nga am benn esprit d'ouverture mais tey jéen euh, bon euh, tey dama bëgg yan format ngeen di liggéeyee par rapport ak seen clients yi nga xam ne ñu ngi à distance tey ki nga xamante ne mu ngi seetaan émission bi tey euh, gis démonstration gis lu rafet li parce que lu rafet ñëpp ko bëgg bëgg ci commande yi nekk Sénégal wala nekk ci Afrique wala soit nekk ci ci région bi Kaolack Fatick Thiès saint bi donc yan format ngeen di faral di liggéey liggéey ak ñoom. waaw en fait euh, euh, ñun. Mm-hmm. loolu ñu ngi ci xalaat bu baax a baax a baax. ci format bi ñu war a liggéey mmh. ba ñi ci xalaat instant bi ñu ngi nekk di monter site bi mmh. site bi nga xamante ne ci la ñu war a defee vente en ligne yi pour ku bëgg mmh. ci ngay def sa commande ak sa lépp ñu mën la livrer mais actuellement comme pareegul même méthode bi ñu doon liggéey la ñuy liggéey boo gisee li nga bëgg parce que dañ koy am mhm. léeg-léeg li ñuy publier dañ koy am ci boutique bi mhm. Mhm. boo ko bëggee dañ la koy livrer da ngay pay fay par transfert ñu livrer la bu fekkante da nga bëgg ñu ñawal la sur commande boo amee ku la jëlal mesure boo ñu envoyé mesure bi dañ lay ñawal li nga xam ne te buñ la jëlee la mesure bi ñu soxla parce que buñ lay buñ lay laaj mesure dinañ ne la jëlal ñu lii ak lii ak lii dañ lay wax lii ak lii ak lii la ñu soxla ñu jëlal ñu ko bu ñu ko jëlalee mm-hmm. dinañ la ko ñawal ni nga ko bëggee mm-hmm. ba ñu foog ne ñun ñoo ñëw jëlal suñu bopp mesure bi mm-hmm. parce que mesure bi bu ñëwee tak gars yi mesure bu ñëwee buñ ko xoolee xam nañ lu débordé ak li ci c'est que yi dañu grave <laughs> c'est que affaire bi loolu la xam nga li ci impressionné mooy buñ ko jëlee bu ñëwee lu ci baax xam nañ ko lu ci baaxul xam nañ ko. c'est des professionnels quoi. non ils sont non gars ils sont calés quoi. ils sont calés quoi. dañ ko jàng. bu ñu xoolee mesure tak lu baaxul. Mhm. dañ naan la lii c'est pas normal. Mhm. lii ak lii warul ànd nii parce que munoo am fii lii am fii lii munul nekk. Mhm. par mooy wane rek gars yi seen li gars yi fu ñu fu ñu fu ñu toll quoi. ci métier bi kon donc. boo envoyé mesure dinañ la ñawal loo xamante ni. bu ñëwee day toog ci sa yaram. parce que xam nga ñaw. li ci gën a garaaw mooy copie. gaa yi ñoo garaaw. gars yi dañu garaaw ci coupe bi quoi non gars yi ils sont trop forts. garaaw non gis naa loolu man kubéel nañ ma fi dama yegg kër ga rek gars yi nangu ñëw. <laughs> non noonu lay demee. dama non da nga koy joxe. wala fii Jene Prestige la jóge bon gis naa ngeen di faral di def aussi tamit benn affaire mooy ci numéro whatsapp bi donc nit bu leen soxlaa contacter leen ci par whatsapp ngeen jox ko seen i modèle mu def soo le choix bi donc def choix bi envoyé leen choix bi mu def. ak ak ak ak ak ak mesure bi nga xamante ne moom la jël ngeen ñawal ko livreel ko ko ak fu mu mën a nekk ci Sénégal. aussi donc gis naa ni aussi donc yéen a ngi ci Facebook bi di defee seeni i modèle mais tey donc ñi nga xam ne tey ñu ngi pirate seen i modèle yaa ngi dégg seen i modèles yi ci Facebook bi di ko def seeni i seen i Facebook seen affaire yu demee noonu léeg nga gis ñaw yoo xamante ne Diène et Prestige modèle bi rafet trop nga gis keneen ku ko utiliser ci leneen donc yéen xam nga. Euh, lan ngeen pare pour loolu loolu quoi au moins sax ngeen ne gars yi bàyyi leen suñu ñaw yi ngeen di ngeen di pirater comme ça. Hmm? non mais loolu sant yàlla la ko hmm. xam nga sant yàlla dafa fi mu commencé. mooy hmm. yow ba nga boo demee. ba li nga créé. mu leer na la yow lii yaa ko def waaye am na yeneen doomu aadama. ñu ngi ci bénéficier yow loolu am na loo apporter sa population. effectivement loolu mënuñu ko bañ pirater kenn mënu ko kenn mënu ko dindi. ko dindi quoi comprendre uh-huh. mais. Mm-hmm. roy du roy roy roy du nuroog pire ah. lu ñu sàcc sàcc sàcc. Ah. du ñu sàcc loxo bi. non non roy du nuroog pire. <laughs> roy du donc loolu moo tax ñuy euh, <laughs> merci loolu moo tax ñuy tranquille ñun nii li nga ñun bon. Euh, merci beaucoup donc loolu moo tax ñuy tranquille donc roy moom du nuroog pire loolu moom. Euh, musul am bi jamonoy jamono ba léegi li nga defar muy original ci yow donc keneen képp ku ko mën a jël aussi tamit dina am loo xam ne dina ci des soit mu fàtt ci point wala i wala virgule bi ni la ñuy faral di def saa su nekk mu nekk un jeune boo xamante ne nii des jeunes yoo xamante ne vraiment yu engagé di def lu extraordinaire donc ñu apprécier leen ba pare ñuy def lu rafet ci wàllu mode nga xam ne Sénégal ñëpp leen nangul ci seen mën a ñëw et puis bu ne la ñuy ñawal kilifa bu ne la ñuy ñawal mais ñu ngi ne tekk toog jàpp seen liggéey fonk seen liggéey ndax seen liggéey bu sell et puis seen professionnalisme bi nga xamante ne ni am nañ ko doo leen dégg fen te ñu ngi bay seen waar di participer ci réew mi nekk ay jeunes aussi ñu jara encouragé lañ donc lii suñu encouragement la benn ci ci ci ñun ñi nga xam ne nii donc ñu ngi ci milieu bi aussi di leen wax ni aussi tamit bon comme ni mu ko waxee sànq plateforme bi ñu ngi koy développé Diène et Frères Prestige nga xamante ne nii donc ci sous région bi ak ci région bi fu waay mën a nekk rek di nga mën a dugg ci plateforme bi nga xam ne mën a gis seen i modèles yu original ba pare aussi mën a def say commande envoyé sa sa mesure ñu la livré la ko dans 24 heures fépp foo mën a nekk ci Sénégal aussi tamit ñu ngi dox yeneen i partenaires yoo xamante ne ni pour foo mën a nekk ci Afrique donc ñu mën la fekk la foofu donc ay doomi sénégalais di def lu rafet franchement donc lii la ñuy xaar ci jeunesse Sénégal tey lii la ñuy xaar tey ndawu Sénégal yi nga xamante ne nii tey bëgg nañu yóbbu Sénégal fu fu sori mais tey ci wàllu événementiel donc lan ngeen di waajal actuellement euh, ñu ngi jëm ci tabaski donc tabaski ku ko wax wax une événement de mode te ñi dañuy solu jigéen ñi dañuy solu xale yi dañuy solu jànq yi dañuy solu paa yi dañuy solu tey yan événement ngeen di waajal ak yan collection ngeen di waajal ci wàllu tabaski bi. waaw u fait euh, tabaski bi nag. Mhm. ñu ngi waajal lu doy waar. Mhm. waaw surprise ah? waaw surprise la. waaw ñu ngi waajal loo xamante ni. Mhm. parce que actuellement. Mhm. ñu ngi ci travaux yi. ñu ngi mhm. koy liggéey. étude def nañ étude yi def nañ conception bi. def nañ li ñuy war a def yëpp mais instant bi ñu ngi ko nekk ko produire. léegi pour produire loolu dañuy jël suñu temps produire parce que ñun. bugguñu bugguñu génne loo xamante ni bu génnee ñu ne cam. ñun dañu bëgg fu ñu fu mu génnee rek. Mhm. gars yi téye seen nopp. Mhm. téye gémmi nii quoi. Mhm. waaw ñu ngi préparé lu dooy waar pour tabaski bi nag. lu dooy waar du ma ko wax du ma ko commandé. surprise la voilà man damay bàyyi mu commenté boppam. surprise la. <laughs> gars yi surprise surprise dina ko déggandoo fii ci Diène et Prestige donc jël leen numéro yi ngeen teel a woote def seen réservation ñu ngi fii ci Liberté 6 Extension en face grande mosquée bu Liberté 6 Extension numéro téléphone yi ku koy woote rek di nga ko jot moom mu ngi fii donc bu fi nekkul am na keneen ku fi nekk mais en tout cas le boutique est là du tuxu du daw du làqatu bon mbokkee xarit yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc voilà euh, bon lii lañ leen woon lu yànj li je pense que xam naa ni apprécier ngeen ko seetaan ngeen ko kontaan ngeen bëgg ngeen ci xale yi nga xamante ne ni donc ay jeunes lañu ñu engagé bëgg seen réew defuñu dara lu dul daal seen doole mais ci anam nu mu gën a rafet ci anam bu gën a rafet ndax lii ku fi xool li gis li xam ne donc fii donc lu qualité rek moo fi nekk originalité moo fi nekk te et ay jeunes yoo xamante ne vraiment ba pare aussi tànguñu la ko xam nga tamit di def li gën a rafet ñëpp xam ne li ngay def dafa rafet nga boole ci tàng mais ñoom meluñu noonu soo ñëwee quel que soit alpha dañ xool nu ñu mën a négocier yow ba nga sol donc c'est l'essentiel c'est le mot de la fin après ñu ñu tàggoog askan bi. xanaa di leen gërëm yéen waa Senclic. Mhm. di gërëm internet yi. Mhm. di gërëm suma xarit yi sumay copains sumay parent mhm. di gërëm ñëpp. di gërëm samay collègues samay collaborateurs. Mor Dieng ak. Euh, Ablaye Dieng mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy def affaire yu naay si di gërëm waa Colobane waa Maquette sama mhm. gars yi gars yëpp ma leen di xam nga ñun dafa am fu ñu jaar si si ah, dafa am benn formation bu ñu jaar boo mhm. xamante ni xam nga fépp la jaar di nuyu ñëpp boo mun limee da ngay juum di nuyu aussi suñu sama copain yu yor boutique yi damay bañu lim nuyu ñëpp suma gars yi ñëpp di leen nuyu di leen gërëm bu baax a baax di wax ne jeunes yi mm-hmm. nii la mm-hmm. kenn ku ne na ut ci lenn lu mu def mm-hmm. parce que suñu réew ñun ñoo koy tabax kenn du ñu fekk di ñu ko tabaxal donc il fallait li nekk suñu xel nañ ko génne am fuñ ko teg sotti ko ci ay bopp wane ko pour nit ñi mën a gis loolu ñoom it def loolu quoi parce que c'est très important parce que Sénégal ñun dañu am ay jeunes yu potentiel yu am potentiel yoo xamante ni ñun xamuñu lan la ñu yor. effectivement il ñu retourner waat. Mm-hmm. ci lu ñu moom. Mm-hmm. pour xam lan la ñu yor quoi. Mm-hmm. waaw xanaa loolu laa amoon lu ma doon wax di sant waa seen clic. clic di leen gërëm. di gërëm ñëpp di gërëm internet yi di leen wax ne Diène et Frères Prestige mi ngi fii quoi. ok merci beaucoup.